قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة وعليكم السلام ورحمة الله inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi nangu dogalu borom bi subhanahu wa taala qadara allahu wa ma shaa faal alhamdulillah ala kulli haal ñuy jaale Sénégal yëpp imaam yi yëpp association islamique yi yëpp wootekat yi yëpp imaam Alioune Badara Ndaw liñ ci mun a wax man ko seede mooy jàmbaar dem na ku dëggu koo xam ne rëddoon na yoonam doylu ca loola xaar ci itam lépp lu ko ci mun a fekk euh, imaam niñ ko tuddee imaam la boo woowee imaam yi den ko ca boole boo woowee boroom xam-xam yi den ko ci boole boo woowee sëriñ daara yi den ko ci boole boo woowee du'aat yi den ko ci boole boo woowee béykat yi den ko ci boole kon aliyun badara ndaw yal na ko yàlla yërëm te jiggal ko moom dundam bi de ko jëloon sarax ko jullit yi imma muy jëf luy jëriñ doomu aadama wala muy wax luy jëriñ doomu aadama boole ko nag ak dëggu ak ñeme at yi nga xam ne xam nañ ko néewul ñeen fukki at te ñun kenn ki ñu xamoon kooka la ba bii nga xam ne tàggu nañu kon ñun ñu ngi ñaax ñépp nañ ko ñaanal yér yërmandeg borom bi te ñu ngi ko yaakaar ndaxte ku tudd Qur'an tudd ko ñaata la jàngal be ñooñu mokkal Alqur'an te yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa ne borom bi ne na xayrukum man ta'allama Alqur'ana wa allama ki gën ci yéen moo jàng Alqur'an. di ko jàng alquran borom bi moo wax ne ñi jàng alquran man ko ñooy samay péete kon moom ñaar yooyu yëpp def na ko taxawu na ko ñun loolu lañu seede suñu xamante yàggoon na waaye relation bi li ko gënoon a dëgëral mooy concours bi nga xam ne dañ koo defoon ñii raw ci jàng alquran mu bokkoon ca dem fekk ñu Arabie Saoudite ba ñu ngi fay jàng ñu dalal leen ci jamia islamiya moom ak docteur euh, Habibullah Sy foofu la relation bi gën a dëgër ba ñu dellusee see nag nekkatul relation waaye kenn ki la kon ñun kenn kila kon li ñu mun a wax daal mooy allahumma axfir lahu arhamhu wa sabbit mantiqahu inda al masala salaamaaleykum